te euh, la solution ah. solution c'est quoi sans coloration on sait que jéngu tabax d'accord mais la solution c'est quoi en fait. la colo en fait commencé na ci wax. la solution mooy une euh, mobilisation sincère des des compétences. commencé nañ ci suuf tuuti beneen chose aussi mooy ñu ubbi un peu euh, les les les les différentes options d'impliquer la diaspora beneen chose toutes les diasporas ne sont pas les mêmes. la diaspora européenne la diaspora française n'est pas la même chose que la diaspora américaine parce que américaine c'est une c'est une un pays de diaspora boo xoolee les gens qui sont là-bas mais y a des y a des quartiers des cités nigérianes indiennes de melting pot man je dis souvent de toss de toss salad hmm. parce que melting pot affaire bi day jaxasoo ba doo reconnaître mais salade lu nekk day garder nature c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis hmm. da ngay dem y a mais ils sont directement liés avec l'état de l'Inde am ay China am ay investissement am ay Chinatown mais hmm? c'est c'est c'est l'accompagnement et l'appui de de la Chine ñooy hmm. créé loolu bu ñuy dugg en bu ñuy dugg aux États-Unis dañuy dugg avec des fonds d'accord mais les Sénégalais ñun ñu ils sont dañu dañu dañuy nekk foofu di di struggle di hmm. struggle struggle eh. yu métti saawaay alors que ñun nous devions appuyé par l'État du Sénégal pas pour le bien de nous mais pour le bien des Sénégalais parce que bu ñu fa nekkee créer un Sénégal fort mooy li muy la jaspora fort sénégalaise mais dañuy infuser dañuy dugal capital à Kër Samba non mais